jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuy nañ leen am kontaante ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su ne di jéggalu bu baax a baax a baax ci baat bi xaw a dee bi nga xamante ne vraiment ñett fan a ngi nii Sénégal ci mbégte la ñuy yeewoo di ko fanaanee te yaa ñu ngi ñaan yàlla suñu borom yàlla na jëm kanam ndax ñuy jaajëfal bu baax les lion di Sénégal. ci ndam lu rëy li nga xamante ne indil nañu ko muy Coupe d'Afrique bi nga xamante ne doon nañ ko wër ay ati ati ati at ba suñuy jamonoy maam ba yàlla dogal suñu borom dogal ñu fekkee ko ñu ngi félicité ñëpp di félicité ministre des sports di félicité président de la république waaye di félicité ñi nga xamante ne ñooy opposition bi gis na ñoom ñëpp ci teewaay bu rafet bi nga xamante ni teew nañu ko ñu ngi leen di jaajëfal bu baax kontaan ci peuple sénégalais bi ni ñu génnee en masse soutenir seen réew ndax bëgg sa réew kat ci jaamu yàlla la bokk ñu leen di féliciter bu baax mbokk yi tey ñu taxaw ak wala ñu toog ak ki nga xamante ni kenn du ko présenter ci làmb muy Bulldozer nekk ndaanaan ci làmb yaakaar naa def na ay jéego def ay preuve am waaye keroog gis ngeen adversaire am bi ma ko jëli jee muy caatu yaraax la bare bare bare loo xamante ni wax na ko ci moom naaw loolu dañu koy bàyyi mu nuyu mbokk internet su ko defee ñu wéyal waxtaan bi mbër maa ngi lay bu baax di la siyaar waaw salaamaaleykum Jibi. Hmm. maa ngi nuyu bu baax a baax baax di nga ziar àdduna. Hmm. di wax ne ginnaaw bu ñu sante ñu ngi bi di sant suñu ñaari waajur. Hmm. di nuyu Sénégal di nuyu mboolem kër kilifa diine yi fi ne. di nuyu fi nga ma fekk tey muy waa Marika. waa Kër Masar yëmbal. fi nga xamante ni suma fief nga waa Mbobos. nga xamante ni dañu may bëggee di sant yàlla bu baax a baax a baax a baax. di nuyu képp kuy sama am di jàmm di nuyu ñëpp. di nuyu képp ku sama mbokk. Hmm. di nuyu ñi may ñaanal di nuyu ñi may bëggee di nuyu xale yeeg ndaw yi mag. Hmm. ñëpp maa ngi nuyu ngeen bëggee di ngeen ziar. am na solo sa diggante Caatu lan mooy seen problème lan moo leen boole yéen ñaar. waaw <laughs> no xam nga dañ cee wax waxati si. Hmm. mais Caatu Yaraax man ak moom ramb moo ñu boole. ramb waaw man ak dong moo ñu boole parce que tey jii ñun ay ndaw nekk si ramb. yaakaar naa ne bu fekkoon Parmagues gi ñuy jógee adversaire waaye yoon bu ko fet kon mën du ma bëree moom. parce que mën yoon bi ma jaar wax naa ko mën yoon bi ma jaar moom su fa jaagoon kenn du ko xam. yaa ngi dégg waaw non dafa may yoon gàmbu des fois nga nga dal si yoon boo xamante ni day nooy ni maanaam ñi ngay dajal ñëpp dañ naan yow yaa ngi mën. Hmm. mais des fois nga jaag yoon boo xamante ni koo dajal dañ naan diw moo la mën kon bokkul yaa ngi dégg ñun sant nañ yàgg si kon ñun dañoo jaar yoon boo xamante ni. suma premier combat euh, arène ba léegi maa ngi si dix combat am neuf victoire benn défaite ba léegi nii adversaire bu mu mënti daje dañ maa diw moo mën. li ma ñi nga daan. Euh, kii nu tudd premier gi coor numéro hmm. ma jóge fa deuxième combat am Dofu Diaz. Hmm. Dofu Diaz meen. Dofu Diaz meen. Hmm. ma daan ko jóge fa am Boy Barni. Boy Barni waaw ma daan ko. bi ma ko daanee yàgg def ñu dugg si tournoi tournoi boobu nekkoon man. Bathie Seras numéro 2. Hmm. Samb ak kii nu mu tudd Mbagnick Kairé. Hmm. ak ak Boy Bargny bi ma bëree woon sama troisième combat. Hmm. ñu dajawaat ci tournoi bi ma dajeeg euh, kii Bathie Seras numéro 2 première journée bi. yàlla dogal ma ma ñàkk am ci défaite. ma jóge fa am Boy kii non ma jóge am Mbagnick Kairé. daal koy daan Mbagnick Kairé maa ngi ñu ko jox défaite. koy daan jóge fa am Boy Bargny final. daal koy daan def confirmation daan ko fois. jóge fa ñu jox ma combat spécial mun ak Paul bu daaru Mhm. Paul xam nga Paul ñëpp ne ma. xam naa Paul ñëpp ne ma du si génn. Mhm. ma du ma ko daan ko. Mhm. jóge fa am sama premier grand combat man ak alliance bi gam. daal di koy daan. jóge fa am kii nu mu tudd Big Zamer. nee na bu bu caaray naan xale bu gàtt bi. waaw daan ko waaw jël bu gaaw. jóge fa ñëw am gin bu yof muy sama dernier combat. daal koy daan mu nekk dix combat neuf victoire benn défaite di sant yàlla bu baax a baax waa kon yoon yi bokkul. kon yow menu Bathie Seras numéro 2 moo la daan. menu Bathie Seras 2 moo ma daan. te sa waay nee na moom moo la tàllal loxo de. waaw xam nga loolu noonu maanaam ñu dëkk micro ga ngay wax maanaam dafa yomb moom tey jii ñi mu daan yaakaar naa mën naa ne benn deux ziga ngeen xam ak kii nu mu tudd ki mu mujjee daan nii. Euh, Zal Zal Bawal. Zal Bawal waaw hmm. ñaar ñooñu yaakaar naa ngeen xam. ñooñu kii kenn xam ngeen te man ñi ma bëree ñëpp premier ba dernier combat ñëpp xam nañu ngeen ci gàmm. kon maanaam yoon yi bokkul. Hmm. man moom bokkuñu maanaam moom wax ji ga ga mais bu fekkee dooge biir gaa xi wagaa xi oot kitaabi gaa la maa ko bu dooge fuuf maa ko dàq bëre maa ko dàq xeex maa ko bu fit non bàyyi li ngay wax bàyyi li ngay parce que yow nee na daay wër ci dëkk bi yëpp di ko laaj te moom biñ ko proposé yow biñ la ko proposé dafa bañ a bañ ba sonn ak fi ma toog yàlla bu ma fi toog si média tëkku ko musuma toog sax ak nit sama xel dem si moom yaakaar naa ne mataa Ndiaye war a war a Fallou Ndiaye mi promoteur boo ko laajoon dina la ko wax. Hmm. yaakaar naa ne premier jour bi toog la ma Matar Ndiaye woo suba gi na ma sa combat yaag caatu yaraax loo si wax. Hmm. yaa ngi dégg mu ne ko caatu yaraax mooy booy bu nekk yaraax mu a mu ne mu waaw. te booy nga moo la mag waaw. kon gannaaw bi nekk yéen waaw moom 92 la moom 92 la. yow 94. waaw man 94. Ah, ah ay ca. mais ay morom ngañ rek. waaw mu ne ko mooy booy nekk yaraax mu ne waaw mu ne ko ah wa mm-hmm. bu ko am bu bëggee kay aywa. Mm-hmm. mu ne ma non gars yi bëgg nañ ko même fii ñu toogoon sax gaa yi ñu si doon wax. mu ne ko kon aywa waxaale la promoteur bi nga d'accord woo ma. mu ne ma waaw baax na si nga waxaale ak Fallou suba gi ngoon gi nga ma woo ay 17 heures may dem entraînement nga ma ne ma combat bi taxoon man ne ko ah mu wax ma ne ko baax na mu programme man pare naa si jour bi. te bu ñu la waxee combat bi dama woo sëriñ. déedéet seetlu ci combat bi ñaan lu wala yooyu doo ko jël combat. man loolu du ma ko def. Ah. man loolu du ma ko def man damay man combat adversaire bu ñëw dama koy jël man man ñi may ñaanal ñëpp dañu naan ku ñëw jégal. yaa ngi dégg eh. jaglu sax jaglu sax comme ça man hmm. may may tàggoo wala naa ko mën naa man ku ñëw adversaire bu ma jël. Hmm. ma xam ne man ak yow làmb boole nañu. non damay damay bëreeg yow. yaa ngi dégg maanaam foofu amul sax ñu fay négocier combat bi taxaw na yow d'accord pour bëgg ak man kat. Hmm. man aw programme. Hmm. waaw man promoteur bu ñuy waxaale di jubóo loolu moom du sax programme. nga am taxaw ñu lay xel kat te ay mbër kat. Hmm. amaana nag bu ñu gisee nii nii nii nii ñu dox. mun nga ñëw bañ a foog mbër. wala mun ngaa wax lu la neex si ñun. mais yàlla xam ne ne bu ñu excès si gàmb ba simeeku ba dongal mais li mu wax yëpp si bi ma ko jëlee interview bi li mu wax yëpp yow lan nga ci jàng ak lan moo la ci gën a métti parce que na lu la baax a non li ma si metti mooy li mu ne man dama koo tëkku ay damaa toog fu nekk di wax sama combat ak moom te yàlla xam na ne Birgaas ak fii ma toog yàlla mu fi jóg. Hmm. non mosul demee koo tëkku moom te ma moroom moom sax boo koy tëkku moom bu may ko may chance maa mooy borom 5 secondes 6 secondes 7 secondes. waaw man maay borom combat yi gën a neex si ci ci ci ci chaque saison chaque bëree combat bu gën a neex si saison bi te loolu yéen ñiy rapporté yéen mën nga koy seede. Hmm. man damay bëree combat yaa ngi dégg ba amateur yeeg ñi reporter yeeg ñëpp dañuy bëgg a sumee ko doon mbër xam nga ki tax. Hmm. maanaam ñun bu ñu amee combat dañ ciy def fit def si fulla def si jom ba mat sëkk. ku ne xam ne sama combat bi passé maanaam dafa dem sax ba reporter yu bëri dañ ma doon supporter. mais xam nga lu tax. Hmm. fit fulla ak jom xam nga ñun noonu nga ñu demee si ràmb ñun ràmbul. maanaam mosuñoo ñàkk jom si gàmm. ko fit. waaw barki arxogaani kër yi maa ko ëpp fit maa ëpp doole maa ko dàq loolu moom dama la koy waatal. moom ñett yooyu yëpp nee moo la ko ëppale. biir laay walaay wala kitaab bi waaw li muy wax noonu sax moom gëmu ko war a bokkoon daf maa umpale xamuma moom xamuma de wax jee bëri rek te maa ngi dégg itam mu naan ay Kër Masar ay maa ngi sant Kër Masar yi nga xam ne man maa ko ëppale non day caaxaan rek. Kër jabar nga fi am jabar jabar nga fi am noos si moo ko ñëw noos <laughs> ñëw noos moo ko indi Kër Masar. li nga wax kon eh, kon kii <laughs> Kër ay gorom lay bëreel kon. non ñëw noos moo ko indi Kër Masar maanaam tey jii jabar ji nekkul yaga jabar ji kër fii nga nekk kër yaayam fii. Hmm. léegi nag fii nga ñëw di noos si xam nga di wër si média naan ay Kër Masar nangam ak nangam xam nga te daa sëy si fii. ñun loolu suñu ñun sax nekkul suñu yoon new si. Mm-hmm. moo xam mais maanaam bu taxawee si tagam naan ay Malika Malika seen kër fii xam naa ko kër mbokkam yi mu am fii Malika nii xam naa ko ginnaaw sem bi. Mm-hmm. xam naa ko baax a baax ñooñu xam naa ne bu baax. Mm-hmm. koñ boobu noonu la foofu sama koñ la. loolu lan la jotee ak làmb ji. dëkk ay mbokkam dëkk moom moom mooy wër di ko wax man boo amee làmb ñëwul ba sama koñ moom li ma xam si moom. yaa ngi dégg. su ma ko ko waxoon yaa ngi dégg mu déggoo avance. non xamoo ci moom dara bàyyi si ngeen def yooyu ay bataille psychologique la rek. barki Arkoga ni kër man musuma bataille psychologique musuma def ma ñaar rek. bul ma ko ñett nag. ñaar rek barki Seydina Mohamed gaa ko waatal. Hmm. su ma nee dugg naa ba kër biir caatu yaraax la may wax. kër dara. dugg naa yaa ngi ci contrat. maa ngi ci contrat ak moom ma dugg ba seen biir kër. te xàmmeewu la. barki Arkoga ni kër nekk foon ma dugg ba seen biir kër te seen waa kër xaame man combat dara gu ma si caaxaane barki yàlla man man suñu bëree dama nga xam si loo nekk xam si li ngay dox xam fi ngay fréquenté ma xam ko man damay gijjanti moo dee man nekk ma naan non gijjanti wu ma ko ba bis ba mais loolu loolu nga def man compte hmm. yaa ngi dégg hmm. lépp lu ma mën a def pour daan nga dama koy def man jaral yaa ngi dégg dama koy wax man nga am caaxaane wu ko yaa ngi dégg bu yeboo ma teg si bakkan bii mais caaxaan ne ma ko. mais loolu nga def tey dem kër caatu yaraax lan moo la ci mënoon fekk bu la fa booyam yi gisoon. wala moom mu gis la dara du ma si fekk xam nga tax dagal du mu si fekk. Hmm. mooy ma gaax ga gis na dafa am si loo xamante ni si nit ngay nekk peut-être nag ku xamul xamul yaa ngi mais dafa mais ñun dafa am nu ñuy doxee. yaa ngi dégg te macha allah ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax mais loolu amul lenn loo xamante ne. kon de miine nga ko bu yàgg. non man làmb dafa maa jaral lu ma mën a def dama koy def. làmb ji garaaw la gis nga làmb nga ñu wax gis nga làmb maanaam tey jii moom mi ngi wër di wax naan ay nangam na mais gis nga làmb daf sa dafa am loo xamante ni maanaam da see bokk te day neexal làmb. Hmm. comprendre ko muy di nga xamante ni muy aada ak cosaan te loolu suñu aada ak suñu cosaan te ñun dañoo am ay mbokk te suñu mbokk bàyyi ñu ginnaaw gis nga dañ ne làmb entraînement bi nga gis nii. 100 hmm. pour cent si côté pour ñu xamul am na sax ne des fois damay gis naan musique nangam nangam. mystique 100 pour cent la si côté entraînement 100 pour cent la si côté ñun lépp lu ñu mën dañ koy def parce que làmb bakkan bi ngeen si teg daf ñoo jaral ñun dafa am fu ñu teg suñu tànk. Hmm. yaa ngi dégg am tamit fu ñu teg suñu bët. man tey jii dama bokk si mbër yi nga xamante ni. Hmm. gisoon cinq personnes six personnes yi fi nekk di fay ko ay millions fii deux mille cinq deux mille dix ba léegi mu taw a jeex. Hmm. yaa ngi dégg nangu ñoo may benn boy man dama bokk yow mi muy ay console Modou Lo ak Balla Gaye man damay nekk roi des arènes dama war a nekk roi des arènes. Hmm. incha allah rabbi tëgooru par force la. mais seen combat te amul sama benn morom boo xam ne daf may téye. sa combat yaa caatu yaraax lan lañ ci mën a séntu xeex ci bëre ci ci ci ci combat bu gaaw parce que moom nee na moom. diggewul ay supporter combat bu gaaw. sa combat yaa ak moom ragal na ni mooy gën a gaaw sax ci combat yi. waaw man daal maa ngi koy xaar man daal en tout cas li ma ko mën a wax mooy caatu yaraax boobu mën defal bis ba. te nga xam ne mënoo mucc si man dinaa la duma te naa la daan loolu moom amul sax xaaral ma dinaa Mouhamed dinaa duma te dinaa la daan dinaa def loo xamante nii sax mu benn morom mosu koo def dinaa la di nga xam ne yow matagoo mbër barki Seydina Mouhamed te di nga xam ne mbër bu mat sëkk ngay dajal man dama pare fépp entraînement côté bépp laa pare taxaw di nga xaar yow pare goo xam nga tey jii gars yi dañuy jaawle lu bëri si làmb muy hmm. masse musculaire hmm. yaa ngi dégg physique physique intérieure. Hmm. bokkul. moom bal la ci am. masse musculaire. la am xam nga tey ji yomb na nga am say protéines. yu hmm. baax xam nga di naan di dem di maintien vite fait nga volume. maintien nga ko tuddee. bien sûr day maintien entraîné bu baax nga naan maintien. bi nga waraa day maintien day maintien si diini day maintien bu demee salle. entraîné wul normal dafa yàpp ay supporters am barki yàlla gis nga forme bu rafet donc du doge. mun nga ko liggéey nag mu nekk dooge mais en général lu si ëpp du doon dooge yaa ngi dégg mais ñun Malika ngeen dëkk ci géej gi chaque jour ñu ngi si din amul din am na suuf su bari yaa ngi dégg mais amul din. comme yow li mu entraîné bi nga ko gisee ci ci li. non bi ma ko man dama ko xeeb bi ma ko gisee nii bët ak bët dama ko xeeb parce man gis naa ko euh, mu mu yëg si moto di dawal te moom gisuma mais dama ko xeeb man. Hmm. comme barki alxuraanu karim parce que xam nga lu tax kon kay mu ngi lay xool nee ko mbër mu yokk état bi nee ko mbër yow du ko wax mu yokk état du ko wax mu wàññi état ni nga mel ni continuer ko gëmal li nga gëm bis ba barki alxuraanu karim dinaa nga jaay doole dinaa nga dumate dinaa nga daal loolu moom amul sax lu ma si négocier nee na moo te man maa la ko wax fii jigi hmm. biit laayi waraa wul kitaab bu ak bi sifré non di nga ne booy bi du nit parce que xam nga ma hmm. bëgg def ak moom non du kenn mu ma koy tege def. ah en tout cas daal yaa ngi wax rek keroog caat bi ma demee tamit mu ngi wax rek mais sa tur lay bañ dégg su ma nee Bulldozer mu ne bul ko fi tudd. bul ko fi tudd bu tax ma boole la mais caatu yaraax bi ma gis mu ngi ci état de forme bu jaar yoon caatu yaraax bi ma gis am na doole de Bulldozer waaw na am na doole de am na masse musculaire mais amul doole mais amul doole am masse musculaire jàppante nañ de yëg naa doole ci moom de waaye waraay amul doole amul doole xam naa li ma ko wax man gàmb laa koy wax Hmm. gis nga làmb dafa am doore bu mu laaj dafa laaj nga dëgër yaa ngi dégg dafa laaj nga am coffre am physique. mais combat bi est-ce que séntu nañ ci dóor mu daanu mun naa am ci combat bi. bien sûr ngeen xeex dóor mu ko. bien sûr bien sûr bu xeex ak man mu dóor ko mu daanu loolu man maa la ko wax fii bu neexee nga signé. Hmm. loolu bu xeex man. barki yàlla mu dóor ko mu daanu te moom bu bëggee ménager am. Hmm. xam mi nga wax ju bari comme ça wax ji jaglu sax mu doon bari. ménager am ak sama ménager xamante nañ. yaa ngi dégg. na teg rëdd gaa ma teg sama rëdd gaa coow gi jeex ku daan jël barki alxuraan kariim billaahi wallaahi wal kitaab man maa la ko wax fii bu bëggee face à face signature contrat bi vendredi la hmm. buñ bëggee ñu signé waalo mu teg gërika mu teg sama gërika ku daan jël bu bëggee barki alxuraan kariim loolu da yéen a ko dégg mbokk yi dégg ngeen li nga xamante ni moom la euh, Bulldozer wax li may wax ni waxuma ko pour ay caaxaande waxuma ko tamit pour neexal émission Waka Daga barki alxuraan kariim la la wax dama koo wax bu bëggee mu teg gërëkaam ma teg sama gërëkaam yëpp ku daan jël. ku daan jël waaw. ah loolu de am na solo ma jaaj jaajëfal bu baax xam naa ni euh, ñuy joxe dig daje ba àjjuma incha allah seen jàkkaarloo xam naa ne nar naa neex nar naa yëngu. waaw bien sûr parce que loolu face à face bu naka ne parce que maa ngi dégg Faka Ndiaye naan euh, deux journées yëpp ngay def benn mu nekk benn face à hmm. mu journée bi muy tëgg nga vingt ak ñun suñu journée bi. Hmm. xam nga di si woo nag waa Malika yëpp. Hmm. waa Kër Massar waa Yëmbal bi nga xamante ni moom fii laay juddoo mhm. yaroo fi màggee fi mhm. xam nga mhm. di si woo sama papa Ndiogou Sow combat bi sa combat la Doudou moom dama koy sant di ko gërëm kooku amu fayam di sant ay ñoom Mbaye Diallo Taaga Diop suma grand yooyu ak ñoom Aline Thiam gars yi nga xamante ne may jàppale ñoom Paul Douanier Pape Matar Pénissance maa ngi koy bégee bu baax a baax a baax ak ganaar yi nekk foofu noonu si service d'hygiène bi yëpp maa di bégee bu baax a baax a baax di ngeen ziar di nuyu waa parcelle parcelle di hmm. nuyu ñoom am diggéey euh, Mendy di nuyu bu baax a baax a baax ñoom Assane yaa sagaam buuba café gi Vito hmm. Hmm. xam nga gars yëpp ñoom Pape Tuku waa Mbayaar gi ñoom Moïse Mendy di bëggee tamit bu baax a baax a baax sama benn booy bu nekk parcelle muy Amet Top vraiment daf may bëggee mm-hmm. di ko bëggee bu baax baax baax baax di bëggee ñëpp daal di bëggee Sénégal di bëggee àdduna di ngeen jox rendez-vous le 27 xaw ma fa kenn xaw ma fa kenn xaw ma fa kenn waaw moom am nañu moo xam ne man yaraax xaw <laughs> dem rek euh. incha allah dina xam mm. ne non ramb doy caaxaan ramb kenn du ko caaxaanee dina xam ne musul dajeek adversaire bu mel ne man man du ma caaxaanee ramb am na solo waaw man lépp lu ma gaaj rek yeew bi dina ñëw koy def non yeew bi jaay naa ko bu yàgg jaay nga ko <laughs> jaay <laughs> ndeysaan mbokk yi ñu koy jëfal bu baax euh, moom kii di Bull Bulldozer nekk ndaanaan ci làmb wala laale caatu yaraax ki ko tëdd tëgg nag di Fallou Ndiaye Ndiaye production ñu war a laale ñoom ñaar bu nekk combat boo xamante ni ñoom ñaari xale yi ku ci nekk jëli naa la wax nañ li nga xamante ni wax nañ ko ci moroomam xam na ko ci adversaire bi mbokki ñu leen di jaajëfal bu baax a baax di leen jox dig daje ba ëllëg incha allah ci beneen xew xew làmb ak beneen champion jërë ngeen jëf